ay verre yu tasaaroo ci tali bi ay buntu aki palanteer yu ñu yàkkate ay oto yu ñu taal ñu gis ci wet gi ay xeer yu rëy loolee mooy xarkanamu rajo Futurs Médias lii lee day wane ni ñenn ci ñu doon manifeste ñoo fi jaar di loo xam ne ni taskatu xibaar bi moo ngi koy ñaawlu. waaw euh, dafa di loo xam ne daanaka ñëpp la parce que ku laal presse laal ñëpp day wax taskatu xibaar ñàngat bi mu ci am mooy dafa di loo xam ne metti na te kenn tam mënu koo nangu parce que lu tubaab bi wax c'est lâche effectivement c'est lâche parce que mënoo fekk ñoo xamante ne dañu def seen liggéey. nga ñëw attaqué leen dal seen kaw tal seeni woto ñu lu ñu def te ba tey mënuñu wax ñu lu ñu def defuñu leen dara waxuñu leen dara bu dee ci cadre liggéey la ñëpp xam nañu ñun suñu liggéey ñu ngi koy def de ma manière la plus professionnelle. léeg-léeg da ngay dégg euh, Futurs dañoo far ak Macky fu ñu far ak moom est-ce que mos ngaa dégg information boo xamante ne ñun dañoo far man def naa fi douze ans douze ans ci kër gi mosuma gis wala ma dégg Youssou Ndour woote na faites saa ne faites pas ça parfois ñu toog 6 mois 7 mois 1 an dañ ko gis. il di wax na ko mu ne man tamay employé duñ leen mos wax def leen lii wala vous êtes professionnel fet votre boulot de la manière la plus du ci parce que xaw ma ngeen ma gën a xam donc lii peut-être leneen la ñun xamuñu lan la mais bu dee tooñ la tooñ nañ ñu. naka noonu moom taskatu xibaar bi mu ngi wéy di xamle ni ñoom seen liggéey ci professionnalisme lañu ko wékk mais su fekkee dellu nga ci ginnaaw yàgg nañu dégg par exemple groupe Futurs Médias dañoo far ak pouvoir bi loolu neexul ci xol parce que amul fenn fu ñu mën a waxee na ñun jël nañu parti ci information bi wala bële musula ci àddina donc ñoom nañu wax ñun lu ñu leen def duñ la ko mus a wax defuñu leen dara. ñun nekk luñ fi kenn ñun nekk luñ fi Macky Sall nekk luñ fi opposition bi on est pour le Sénégal on est là pour donner la bonne information moo tax ma ne lii dafa am leen lu ci laxatu dafa am lu ci laxasu xëy na après dina feeñi mais xam naa ne lii moom c'est pas fortuit leen mu ngi ci waaw dégg yi gis nga oto Macoumba bi dañ ko taal mu jeex takk Ndiaga Ndiaye bu l'observateur dañoo taal oto mu ngi ci suuf gis nga ko suñu benn oto bu euh, immobilier bi. dañ ko kayaase mu ngi fee non seulement avant ñu koy tal dañ ko ubbi jël batterie yi c'est du vol jël batterie yi jël carte grise ah jël rajo doox a taal donc c'est du vol c'est des bandits en fait c'est des bandits te démb je te dis fekkee ma ko mais ñiit ñëw taxaw nee ñu boy ils au moins trois cents au moins trois cents ñoo leen mënal heureusement salet bunt buntu moo dëgër bunt bee dëgër moo diis mais bu loolu tey leen la ñu waxaat parce que ci kaw la ñu doon fekk. waaw matuwaay yaa ngi ci suuf gis nga ko gis nga vigile on prend aussi nos précautions. beneen naataangoom bi ci ko feelu moom li mu jàpp mooy li am bett ko. tu sais les gens font des amalgames mooy par exemple jël RFM mel ni jàppee ko comme kii gouvernement et tout loolu mooy lan mais mais je dis loolu. dañuy indi amalgame c'est jël diviser presse bi loolu lañu ñu war a bañ ñun ñëpp nous sommes des journalistes nous some des techniciens de de l'information dañoo war a bañ loo xamante ni dañuy dañuy feewale diviser ñu parce que mooy wane day wane nii par exemple ñii nii dañoo blanc ñii dañoo noir ñii dañoo rouge ñii dañoo bleu loolu lañu ñu war a bañ parce que en réalité loolu lañu bëgg jël ci réseaux sociaux di jël RTS di jël RFM wala TFM di ko boole ne non non non kii gouvernement mais c'est fou média day nettali xibaar day joxe xibaar day wone je politique ku nekk ci nguur day nëbb c'est pas la même chose donc ñaar yi mënuñu ànd moo tax souvent c'est des problèmes RFM Mbacké RFM Dakar quotidien Soleil yenn ci waay manifesté yi yàq nañu seeni màkkaan ci noonu seen TV ak Walf TV seen signaal dañu ko daal di coupé ab diir tax ba Mouhamed Alimou Ba di sàkku si naataangoom yi ñu bañ a may CNRA lu mu leen di ŋàññee. yi ñu tëj par exemple euh, euh, li ñu arrêté mooy mooy le signal de Walf TV et de. c'est encore une fois de plus moi je regrette loolu si su demee ba ñu yegg si yooyu on il faut le regretter parce que même Sénégal liggéey na ci wàllu média lu ëpp lii pour ñu yegg si mais en même temps aussi il faut que les gens soient professionnels man je ne suis pas d'accord pour ay appel euh, euh, nañ taal lii wala nañ def lii de manière un peu voilée parce que média aussi lu de la ko joxee responsabilité la il faut éviter ça moi je dis pas qu'ils le font mais quelquefois des fois boo déggee yéen ni Tu mais est-ce que ces gens-là, ils font attention aussi Parce que l'on le mieux aussi. Parce qu'il ne faut pas aussi que nous ayons le micro euh, pour des fois régler des comptes. ñu mer ba futtu ñoom journaliste RFM yii lee ñoo ngi sàkk ci gouvernement bi mu jël ay matuwaayam ngir dolli kaaraange kër taskatu xibaar yi ngir ñu mën a doxal seen liggéey ci ni mu waree.